America ba tax bu ma doon dem mag rek laa fa am aw ma kii aw ma dara jigéen fit rek ma dama dama si comme entrance da following week bi laa dem so ja liggéeyu ma fi sax man xaw ma mooy fii bu baax mun naa wax ne li ma xam America moo ëppal li ma xam fii because foofu laa gën a yaatal waaye bi maa ne man tam xaw ma dara mun naa wax ne suma first job McDonald's laa liggéey comme di Philip Burgers two days laa fa am ma believe me because mënuma ko i a start am na fii comme suñu parents dañuy yàq nag torop sorry to say because we saw fi nekkee doo dee mën a def mocc ñoom we ko dee def lu nekk ba pare mbindaan yaa ngi fay yëpp so daf ñuy yàq tuuti so da ngaa gis it was a reality shock shock for me because ma war a jànga comme naka la ñoo defaree booga ba pare 6 am laa jóg imagine that 6 am war a maa down, si liggéey kaa two days su ma peccee sa jëluma ko after that waaw ma commencé di understand liggéey bi parce que am going maanaam tamit ma nekk di seet suma borom yi lu ñooy def ma ne you know what why not I can do it so noonu laa si nekkee noonu laa si nekkee ba tey ma nekk fa sëy at a young age 23 moom mu nekk 25 ñu am ñaari njaboot so noonu la rek may di ma ñëw um, so noonu la naka computer programming laa jàng honestly waaye ma taxu siyaato Well, my my neck is Yago because Atlanta language actually. Then Atlanta for one year, then to who them um. Yang gila kon. Wow wow, langsung talent. <laughs> Oh Sigaw min talent. Jangan ada. Kiwan gako um lipin the semester hangout. Her story is rich. Oh my god. <laughs> then um then to who um Seattle. Seattle neck almost 18 years. Um, then who man only um even though computer program in janga why man only insurance company because after that, I feel ne uh, nekka si healthcare business be bi moo ma daaxal léegi dama as a nursing assistant force ma liggéey to for six to seven years then ma dugg nag si healthcare I mean si insurance bi then insurance bi ma nekk fa nekk fa mais bu ma fa génnee taxu Atlanta then Atlanta tam bu ma demee it was time recession bi so loolu moo ma dugal nag si defar boppa bee makeup bi dew ma school nag wax dëgg lu ma yàlla may la nii kenn musuma toog ci ma man ànd amul so nuy laa si duggee nag den dugal léegi si jaay bi léegi dugal si chef bi I guess bu ma mosee business bi ma ne you know what let me just do this though dama dee nama liggéey bi so non la bi ku ku nek danga fa am fi ngay commencé nga dem fi nga bëgg a dem mhm. loolu rek la illa yaa man daal lu ma lo daal loolu teg sa xel daal def ko lu ko way da ngaa rek asa yoon pass hal ya. waxal gars yi nomba business bi hey Gambien si ma a ko xool koo xam Fatou nga soppe sama cité avenue man maa ngi jënax bari ba wana leen 2023 no jënax dee bari ba 2023 daal ana moo koy dagatee mu jox leen business boo xam bu correct boo xam ne amul yëfi loo xam ne ay ñeneen foog naa dina war a ñëw tey dina war a ñëw da nga xool sam time njuuti jaay bi daf dee bari te gambien si bari dundee get into business kan lañ ko dee bàyyee sorry to say suñ mbokki sénégalais yi mm. and all that so gambien baa ngi nii yaay gambien baay gambien waa kër ba yëpp gambien di def business bi yaa gaay nomba ku nekk Amérique yu néewloo sa mbokk bagage yow la neex ku nekk Amérique yu néewloo bagage yow nga nekk Gambia mi néewloo sa yow la neex xoolal ana mu jox la bagage yi naka la. wax dëgg 206 la three eight four one eight zero eight. 1808 um, maa Atlanta Why, saa why? waaye saa yu bagas to Atlanta naa la ko indil soo la order through Amazon or Shein or wherever you want to order and then just ship it to me and dinaa ko indil sa famille bi fii incha allah rabi. kese loolu laa ko bëgg a defee soo leen ko koolee. oo ngeen rus koo kool maa ngi ni may piyaaru. wax leen ma rek ma wax leen naka la ak nan la yóbbu la bagage bi foo ko bëgga so support my sister and support Gambia. So leen support ko yéen a ngi support Gambia. yeah but also also also also support Gambian's talent. because you get def lu baax a baax a baax xale yaa fi nekk ndaw yaa fi nekk boo leen supporté support ngeen Gambian si boppam. because this is it lii la ngay am ñu fi nekk ñu ngi mag waaye xale yi ñooy war a nekk leader ëllëg so when you support Gambian talent because young xale yaa so foog you jàppale leen te ñu ngay def back, you yi the yi and you ñu bari to di ko génne te dañoo them to the whole nine yards to do whatever they need to do to get you guys the news that you guys needed so foog ngeen help you di support not only Satan, why ngeen the share and also donation will be nice too <laughs>